Trois espoirs. romb nag benn sër. benn saaru kool. mooy ka Ndiaye wala mi champion la. xaar na leen li ñu bëgg ak li ñuy bañ. maa la wax loolu. xam nga lan moo soral booy bi. Ah. dañoo bokk tànk yi ñu teg te tànk bi mu teg du fooram. te gauche la jiital kii jiital droite. waaw waaw moo tax ku ne mën naa dóor morom bi ba mu sonn. maa la wax loolu loolu day arrangé mais du arrangé ndaamale. gauche gàttal la lamb. ndaamale fatt bi liir bële rek. xel na ko bu jël ko. bu liirul bële buy dem mën na kaa gaañu. moo tax daa war a fatt gauche liir droite. booy wala am man daa ma ne deful bu bëree nii bu bëree day gaañ. ñoom ñaar ba léegi dara xewagul làmb. waaw dara xewagul droit bi day xaar mu jóg mu jël ko. ñoo ngi noonu si kaw la. boo ko defee du yàgg yow. li mooy spécial bi. waaye lamb lii lu waaye booy bi ñu ne kuu de. lamb lii lu mu waaw waaw booy bi saa dina doon waaw non ñu ne kuu. yem leen ñu ne kuu. dañ leen jàqale. maa la ko waa. lamb non tàqale du du ko seen diggante. du ko defee ñu. ñoom biir ba xam lu làmb nangu ak lu làmb bañ des na tuuti si kanam sama sama waa ji ñëw aroot ak maroot sëriñ sëriñ nee na aroot ak maroot la maag moom des na tuuti mooy ñëw développé mu gën a neex arbitre baa ngi leen di dee li làmb nangu ak li làmb bañ ku ko si def ak ku ko si deful li la siy fekk ak li la si dul fekk ndaysaan doxalal ñu dem arbitre arrière na mbëri arrière nañ xool na ziizi ma ngay liir ma ngay liir léegi mu soufflé soufflé na wure wa dem na këng waxe mag dem dañ taale bàgg war na mbaam Serigne Ngoog léegi laa la doon wax léegi Serigne ñëw ñu développé mooy aroot ak maroot moom bu jëlee rek gars yi dañ koy nammoo. Serigne sa waay sànni na góos. huitième combat de la soirée diggante Talla Gaynde ak Ousmane Dereb mbokk yi Ousmane Dereb moo ñu ginaaw mbok mbokk yi Talla Gaynde moo ñu woon kanam. Talla Gaynde sànni na góos. Ousmane même ñoo taxawaat. Talla Gaynde sa na jël ko tax ko. bañ na daw na jàpp si ngemb ñoom ñaar ñëpp am nañu ngemb. namoon nañu làmb ji. wallaay ndeysaan. Ousseyn waaw sa waa koy waaj a bëtt. Ousmane Dereng. ay Ousmane Dereng kenn ko cokkaas bëtt na la bañal loolu. bañal loolu bañal loolu. bañal loolu taala ay taala gay na la de taala génn na saako arbitre arbitre yow it ay waay ay waay sëriñ dañuy ñun dañuy foo dañuy ree ah, bu àttewul loolu bu ko daanee day indiwaat consistance waaw dem si soos waaw waaw waaw oh, Ousmane Ndreng Talla Gaindé premier contact bi neex na ñuy xaar beneen dañuy fo yéen rek maak Serigne Aroto ak Morot noonu huitième combat mbokk yi Ousmane moo ñu woon ginnaaw Talla moo ñu woon kanam Talla cokkaas na sànni na gauche sànni na gauche moom Talla mais du gauche mu gëm ah, waaw sa waay Ousmane Ndreng sànni na gauche damay ragal am la taala dawaat na yooru dawaat na yoor taala xanaa bii nga xam baal kalu ginnaaw baaxul buñ la mbootee du deex laay la laaw mais Serigne Senghor yi si suuf de ba duñ ko te taala ak Ousmane jàppante hop épercule waaw waaw épercule yi doyul de taala gay ne dóoraatal faari hop hop hop gaay jàppante nañ gaay waaw waaw foofu de pompel waaw waaw fees bu yàggee da nga jël jaasi tojat bu ko bañ mbër du laabir si biir géew boo ko defaree teen la pardonné sëriñ Talla Gaindé ngay nelaw sa mbagg ma. lamba lak mi ngi noonu. ñoom ñaar jàppante. ku nekk te sa gaña morom. ku nekk rocc sa loxo door. da ngay rokkas Talla Gaindé tante na mboot. lay la la la waaw waa waa waaw Talla nga koy dàq ak plaqué Talla oh la Talla tànte na ko ñetti yoon loolooy lakk su kuulam tegal na ko sées sa gannaaw wéer ko poids bi mu jaaxaan. Talla Gaindé Talla Gaindé daan na Ousmane Ndereng dina bati Ousmane. Ousmane Ndereng jàngi waat. lay de lan la. te mérite woo. Eh, mbaru géej ay ba daanu noo. tot mu nga. mbaru parcelle daanu. mbaru ñoom Jackson ba daanu na. mbaru ñoom parcelle daanu mu nga. am sa yaa daanu na. oh eh, Talla Gaindé. mbaru ñoom ren guy ga daanu. waaw waaw. oh. mbaru womat. Talla Gaindé. oh. Ousmane Serigne oh. kii mu àndal mooy Ndiol. mooy Ndiol. bu toosee mu neex bu bàkkoo mu neex. man moom Ndiol. Ndiol daanaan la lañ ko fi seetaan. am naa Ndiol oh, yóbbu. bu leen yóbbu. Ousmane a ngi noonu. laay gaynde nii taxaw. Ousmane ki daanu wamat nañ ko yóbbu. Fadu xoolal ma laay gaynde. daa ñuul kukku. moo tax ma ne la mbër bu amee doole day ñuul. mais xoolal xoolal ma tee bàyyi ko après kii day ñëw ma ziar ko xoolal tee bi ni mu ñuulee moytul ma mbër mu ñuul badu waxoon naa la mbër mii ni mu gën a ñuulee ni la ëppee doole doole yemul gay de damaa gis nga bëreeg booy bi li nga ko daane nga tànt ko trois fois déggoo lim la kii nii suñ doon contact fii ba suba du ma daan mais làmb daa am ay affaire say supporter nga xalaat say waa kër say mara say ñeneen ak ñeneen entraînement yi kon nag am na loo xam te ne doo ko maye si làmb. est-ce que ne tequm ginnaaw nga ko teq yéeg ko. yéeg ko maa ko sut ay waay maa ko dàq bëre keroog sama booy bi loolu la ko def juum ma war ni ko man loolu noonu mu daanee sama booy bi si laa koy daanee. parce que ko ñetti yoon. moom la daanee sama booy bi. booy bi booy bi daf ko téq mu delloo ko. moom la demee. li muy bañ. waaw moom laa koy defar. noonu la demee. loolu tax man laa daanee histoire bi. dama ko ëpp doole. Ah, waaw bëre. si kanam na booy ñëw jël ma. xam nga ne laa mag lay barki alxuraan na ma gars yi jël ñu bëre moo gën. koy koy wër. booy nañ ñëw ñu bëri ay. booy mooy ñu si bëri ñëpp am nañ combat gaan ma la suñu waaj na booy ñëw jos bu jaam gën na ñëw ñu bëre. jos bu jaam gën barki Serigne Bamba na ñëw ñu bëre. bàyyi ma ko fi booy yu bëri fii gaan ma la waaj xam rek booy lim mooy loolu. Jali 2 waaw. na ñëw ñu bëre baax na. Eh, eh, Ousseyn Jali 2 laay gaynde taala gaynde jeex na loolu ngeen si waala sëñ Fallou ko jaar ci billaay wallaay maa ngi gërëm sama waa koñ gërëm wala amoo non man amaguma gel gelu muuma laa bëgg na gelu muuma laa bëgg mais amaguma gel soxla si gelu muuma non dama xam ne muuma patak organiser lay àndal ay waay te man samay mbir bëggul wax moo tax samay cuq bokku def cuq gaay man la demee nag doole yëmul ajal lamb la